dañuy joxe ñaan gi ñu muslu seytaane julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam jàng faatixatul kitaab jàng ayatul kursiyu jàng àllam nasara jàng ñetti lixlaas jàng fàllaxe ak naasi julliwaat ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam lii nga xam ne moo ne fi tax a daje tey fii ci péncum Samayel Baal lépp luñ ci séenu yàlla na ci yàlla wane lu kawe sunu njort ci darajay Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barkeb kilifa yi barkeb tund wi barkeb mbooloo mi bi jaahi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon bisimilah. damaa xamul damay jëkkee monsieur le maire xaw ma directeur xaw ma sous kon nag ma jëkk sous-préfet rek ndax nag ah tàgge joo gis am na jàppal diw poto bi ñu jëkk a samp keroog ba ñu ko yoonam maag moom noo ànd bu ñu ko nuy duut noo ngi bokk taxaw. ma ni ko njóogu mu ne ma ah ma ne ko gis nga ndooy kët tàmbali na waaye jàpp ci boppam taxaw maa ngi moom noo ànd kër mi ngi nii toog kon su préfet maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di nuyu directeur di nuyu monsieur le ndooy la ma la waxaan rek ci penc mii du ma wax di ci dellu gannaaw du ma wax di fàtte du ma fenn kenn mënu ko am yàlla bindul ci àdduna doomu aadama joxe man nga maa tax lu ma xamul mbaa lu ma narul te ma ko def mukk dama laa waxan ne la sa baay jëkk sonn ci piir la mu doon daj gitul ci añ ba yàlla na ko yàlla leen ci tund wi joxoo moom njël na sama fere ba di ma neexal waaye nag sa baay woon na la nga ñëw ma fàttaliwaat ko ci mboole bi ñëpp di ko dégg mun la ndóoyi nga ne xaamu la mbaa kii tey nooy bokk añ yaa nu yotub añ dafa naa loolu fenuma ko de añ ba ba mu noppee la fa diw jigéen la ñuy bari bari say jabara nga fa say ndey nga fa waaye da leen faa bàyyi fab añ ba ngàbb ko indi lan napp ba maag sa bàyyi nu bokk xañ sa bàyyi ma wax ci làmmiñam ne ma ne ndooy mii day bëgg naa ko ñaanal ndax gërëm naa ndeyam moo ma ko wax billaahi wallaahi moo ma ko wax bu ko waxul duma ko wax tey mi ngi suuf dinaa ko fekki kon ndooy ku séddu war ngaa seddu ku séddut war ngaa séddu ku sonnal sa bàyyi sonn ci dëkk ngir aw tund yàlla dina la fay jëyuma la wutuma la loola neex damaa wax rek li am bu ma gisuloon loolu dama ko wax sa baay yàgg na maa am loolu te PS mu nekk maire PS di dox ñuy dem di dema dem ba yàgg ñu xëy boobu Ibra Diop Baye kee moo nekk directeur waññi ko nag yirif tund wi ci wàllu politique benn bis mu xuloo Moussa Fall Moussa Fall jëli sa baay Kébémer indi dañu Ibra Diop Kera yëpp nag mu ne ko ah mu ne ko bisub tey li ma la xal mbooy da ngay mën a góorgóorlu bu baax mbooloo nu la puus nga topp nu teg fi Ibra Baan mii kon yaag ma seer seenu ànd lu war a nekk la lu ngeen ànd doyul Ibra Baan daf ni keroog la mu wax Moustapha Fall moo di lu nekk laa man ci àdduna ba mu di su opposé wu Ibra Jóob moom kay dana ànd di wut ba mu am mu ànd ak man may wut ba ma waaye man yibra aw fi yibra baat aw fi loolu moom ba adduna tukki du loolu moo xam ne kenn gisu ko eh, maa ngi sori te dafa am loo xam moo waral bis bi kon moo toppee ci wax gi day gudd mbokk yi dama bëgg bala maay jàll foofu yéen ñi nga xam ni yéenay dund ci 22 villages yi góor jigéen mag ndaw ngeen tàccul lu monsieur le ma soog a wax dara góor ak jigéen ku bokk ci 22 villages jërë jëf jërë jëf li tax ma wax loolu li tax ma wax loolu monsieur Mbaye dafa am lu mu wax léegi ci la ñu bëgg a dugg sant bu baax monsieur le maire di ko gërëm di ko ñaanal yàlla xam naa ngërëm teel na waaye kon ñu ni ko jaajëf pour le moment ndax pour mu yokk dooleem li mu wax ci 22 villages yi loolooy li am 22 villages yi bii di Samayel ci la bokk 22 villages yi jóguñu pour boole seen doole pour sànni ay xeer déedéet danoo jóg pour doo boole seen doole ngir li nu manqué li nu manqué mooy lan bu la fi jant sooyee monsieur le directeur général maa ngi lay nuyu maa ngi ñëw ci yow bu la fi jant sooyee nga taxaw fii wala nga génn ci kaw tund wi xool di nga xam ni fii nga indi courant bi fii rek a yayoo courant monsieur le maire xam na loolu 22 villages yi jóguñu pour sànni xeer jóguñu pour toj jóguñu pour yàq jóguñu pour saaga musta am tund Sangaxoor yépp mouvement la boo xam ne ñoo fi jëkk a taxaw yuuxu ci télé yi yuuxu ci rajo yi dem ci réseaux sociaux yi di wax di ñaan li ñuy ñaan te teg ko ci yar ak teggin su amul nee leen amul sunu kàddu nag démb ak barki démb genn kàddu rekk la musunoo wax ci réseaux sociaux walla ñu wax lu ñaaw muy maire sortant ak maire bi fi ne ak ku fi mën a ne dëgg rekk la ñuy wax di teg suñuy kàddu ci yar ngir li nu manqué tey nag pour ñu sori monsieur le maire wax dëgg yàlla ku la dig añ mbaa mu dig la ndékki dig la añ dig la reer bu la joxee ndékki ni la añ baa ngi ñëw war ngaa gëm war nga koo gëm la li nga waxoon yépp yaa ngi ci masala yaa ngi ci yoon wi boo déggee 22 villages yi ni teg c'est parce que yow yaa commencé def ñuy gis li tax ñu ni teg sama portaabal de ñu nii dafa fay yàlla xam nañ daa fay lu ko tax a fay ñàkk courant monsieur le directeur général nun day grâce à sunu maire bi tey moo tax ñu xam kan mooy directeur sénéral nga toog fii ñu jàkkarloo yow tey noo ngi lay ñaanal yàlla bu baax a baax yàlla na yàlla réussir sa mission may ñëw nag ci sunu kilifa kilifa yi comme fi ma jóge moo tax ak yaramu tàng waaye monsieur le préfet sous préfet monsieur Ndong ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax ndax combat bi jàpp nga ci boo fàttewul ñëw nañ fa ñaan fa autorisation pour mars sitin nga may nu ko yombalal nu ko lool amul benn problème booba dañ doon yoonal rek na mu nun 22 villages yi bu nu defee sitin jarul gendarmerie ñëw jarul police di ñëw dara du xew nu na nunu nee na nu lay sant bu baax ci sa mission yow yàlla na yàlla réussir la bu baax a baax a baax kon foofu fi ñu fiy dolli rek tey kat ay malaat monsieur le directeur ay malaat nga jàkkaar lool tey mën naa la tuddee docteur tey yaay docteur bi fii ci Samael yow lañu ñu jàkkaar lool docteur bi ñan la jàkkaar lool ay malaat dong malaat yi lan lañu feebar xam nga xam nañu fii lu courant mosuñu koo gis ci 22 villages yi depuis 61 ak léegi mosuñu koo gis tey lay door a gis fii lu courant ci biir 22 villages yi tey waaye nag waaye nag li ma wax maire laa lay wax dañ la naan jan na naan jërë dañ la naan waaw góor neewaguñ la jërëjëf de waxaguñ ko ndax taalaguñu nag te it te it te it bi départ fil yi départ na poto yi départ na waaye am na dëkk yu mu àggagul monsieur le directeur dinañ ko joxoñ fii ci Samayel de poto bi fi la déparé topp naa ko ba mu dem ba ngéyeen ma jàdd na dem wuti te taaleen wolof jëlal monsieur le directeur jëlal li may wax ñor na ma te ñor ñor na njaboot bi bi mu ñëwee taaleen bi mu ñëwee ngéyeen ma mar dafa jàll mel ni luy dem caameen dem ba yéeg tund wa ñu def fa benn poto bu mag génnee benn axe mu dem kër Mérina Sall ma ne alhamdulilah ba tey mi ngi ñëw mu nga génneewaat beneen poto ma nga jom boori layeen diggante ngay ngay léyeen jëm noonu ba tey ñun alhamdulilah waaye nag jàllul caameen de ak la ko wër jàlla gu fa dañuy ñaan foofee dëkk la boo xam ne caameen ak la ko wër Touba la caameen Paul ñu ko wax caameen 2 moo ci caameen la bokk sama chef di sama village la waaye caameen 2 la dafa tafu ci man boo nee caameen kese boo ñëwee pencum caameen ñëy liggéey fa la ñuy yem du ñu jàll ci dëkk ba nga ni Kër Yoro Ndiaye ci 22 villages yi la bokk nga bàyyi noonu dugg wuti Dakar doj ngéri léyeen kër Aliou Kane ba kër Assane Fall am na nag foofu monsieur le directeur comme yoway euh, directeur général PIDC dinañ fa am lu ñuy laaj jamono yeenu génn ci mois de mars danoo gisoon benn équipe bu dugg ci àll bi natt fi ay dëkk commencé ko kër Aliou kër Assane ca kër Matar Xaali booy génn Tiwaawan kër Matar Xaali fa la courant ba natt ko ba péncum caameen dëkk yëpp natt nañ ko gas paxe ya waaye benn poto sampe fa ba fii nuy wax ak yow affaire ba arrêté ñu laaj ñu ni nu dafa am kalkal directeur général ki yoroon poto yi moo di moo laa ñu ni nangam oto yi koy indi ñoo ñëwul ba paxe ya tabarakalla suulu na looleet lu nu jaaxal la ndax ligne la bu rafet bu jekk bu ñëpp doon saluer kon directeur général loolu ab laaj la lu ko tax a taxaw noo ngi ciy defub laaj. mu mel ni fii ñu taxaw ru suñu fee taxaw tay ndax comme ni ko àll caam waxee rek man ci 22 villages yi laa bokk yaakaar naa ni télé yi xàmmee nañ ma TFM bu Youssou Ndour moom xàmmee na ma laa laajteetu ma ndax maa daan jooyee ci tale yi ak réseaux sociaux yi di ñaan courant ndox yoon. man mii man la may caara sogg dëkk Merina Sall léegi nag li doon jooy yàlla dogal na soppalil nañu suñu doxin ndax dañoo amul woon maire bu man a lijjanti ji indi ba ma demee ca Baab Diop si dama ni ko woon ñu de am nañu meer waaye dafa togg añam ba pare te yàkkul yow nag dangaa togg sa añ yàkk ko di séddale ñu ñëw xaaraan si kon doy baan merci kera bañ demee njeng dama la ni guddee gont xam fa fanaana ko gën a wóor ñaw paaka mën a rendee ko gën jërëjëf gàtt na waaye ku liggéeyul du ko dégg kon dooy jërëjëf ñi ngi lay sant di la gërëm bi nga jotee ci maire beeg léegi matagul six mois yaa ngi jëf yaa ngi rëkk dangaa ngëb sa loxo bi nga baale aw xeer yaa ngi rëkk ñun jigéen ñi da tund yii vingt-deux village yëpp góor jigéen mag ndaw ñi ngi lay nuyu di la ñaanal yàlla sa yan bi yal na yàlla oyofal ko yal na yàlla téeñal yal na yàlla yanu la la képp ku lay xaar ci lu yal na xaar ndaxte kat yaa ngi ci courant bi yaa ngi ci ndox mi yaa ngi ci hôpital yi yaa ngi ci jàkka yi yaa ngi ci ñëpp bàyyi woo kenn sones bi tey boo leen gisee ñoom ñëpp ñu ñëw teew dañoo gis lu leen jaral ku gis nen ni nena ngi te ñun jigéen ñii dañoo gis nen ni nena ngi kon monsieur directeur comme ni la ko àll ci am waxee rek tund wi daal bëggatuñ fee gis fu lëndëm dañoo bëgg mu leer naññ tali bi ñëw ñuy bokk suñuy pañe oto yi gaare ñu dugg sango ba set sañ sa ba naay yéeg suñu oto dem duggi ñëw toog ci suñuy saal taal suñuy télé toog seetaan ñun dañoo bëgg Youssou ba bëgg ko ànd ak Youssou Ndour moo tax ñu bëgg Ndoye Bane Ndoye Bane dañ laa fan ñoo tey bëgg la dañoo gis lu la jaral bëgg la monsieur directeur ñu lay ñaanal yàlla yal na yàlla yokk fan wi wéral la dañ ne bare la barkeel la yal na yàlla barkeel la merci dañuy nuyu su préfet mi nga xam ni mën naa ni tey jii ci jataay bi moom fi nekkal état bi moom moo représenté gouvernement bi ci jataay bi ñu ngi koy nuyu di ko sant di ko gërëm bu baax comme ni ma ko tuddee rek moom su préfet la waaye moom mooy sunu premier conseiller technique comme ni ko Mamor waxee ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ndax soo jotee lu toll ni maire yi euh, euh, maanaam euh, sooy doog a tàmbali il faut ñu ñu mel ni yow jege ñu. pour di ñu teg ci yoon. ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax di sant di gërëm bala may ñëw ci directeur chef de village yi di jiital ci nuyoo bi baay Baal mi nga xam mooy président des chefs de village. chefs de village yi fi teew yëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu imaam yi di nuyu femmes yi jigéen ñi ñoom nga xam ni lu ñu bokkul rek du neex di nuyu jeunesse bi di nuyu bu baax a baax sunu papa ji góor gi seen nga xam ne moom wax dëgg yàlla xel mu rafet la yor bu sell lépp lu ñuy def lu baax ci tund wi suñ ko mu ñëw ànd ak ñun père ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax kontaan ni di di sant di gërëm sunu conseil municipal bi ñëpp ñi nga xam ne ñëw nañ def nañ déplacement ñëw ak ñi ñëwul ñi ngi leen di sant di la gërëm monsieur directeur ñi ngi lay dalal jàmm fii ci Pire Cheikh Diop nit ñi ñi ngi lay dégg di dégg PUDC comme niñ ko waxee piir gii dañ daan dégg PUDC rek meew xamuñu woon lan mooy PUDC xamuñu woon kan moo jiite PUDC ñi ngi lay nuyu di la sant di la dalal jàmm yow ak délégation bi nga àndal ñëpp fan yi sonal naa leen lool lool fàttali leen mais lii rek laa bëggoon comme ni ma leen ko waxee rek avant ñu doon nekk maire monsieur le directeur dañoo xam dëkk ci dëkk bi nag ñun dañoo dëkk ci dëkk bi dëkk fi dëggantaan leen naan Balla Gaye xaalisu mbër ko ngénte man xaalisu Pire moo ma ngénte defar ma donc man je suis un produit de Pire fii laa dëkk moo tax ma sonal leen xam wopp ji nekk ci tund wi moo tax ma sonal leen xam wopp ji wopp ji yàgg fi lool moo tax mu dugg ci politique bi jéem a saafara wopp jooju def ci la ma mën ma tàmbali ko avant may jël mairie bi dégg dëkk yu baree bari état bi dafa def courant ma gis ni sama dëkk bi daal sooxe na ci wàll woowu ma fëgg bunt bu ne fu ne fëgg naa fa avant may nekk maire fëggoon naa la nga ne ma ñoo ngi ci mais bi ma nekkee maire yëf yi dafa gën a yomb ma toog ak son excellence le président Macky Sall ma bëgg ngeen tàccul ma ko bu baax bu baax a baax a baax a baax le président de tous les sénégalais bi ma woowee ma toog ak moom ca pale ba Masser defal ma dossier boo xam ne douze points la point bu nekk ma tegal ko ko di ko ko expliquer ba ñu expliqué ci Coran bi ma ne ko yow yaa ni da fi ak mille cinq vingt cinq da nga bëgg dëkk yépp am courant mais suma dëkk ba am nañ plus de trente village yoo xam ne amul courant gaa yaa ngi ci mais dafa yéex. le président Macky Sall moo ni ma xam est-ce que xam nga Cheikh Diop PUDC man ko xam naa ko mun ma soo fi jógee nanga nga ko seeti mun ma est-ce que xam nga ndaw soo abi te mu nekk DER mi financé femmes yi man ko waaw mun ma soo paree na nga ko seeti président Macky Sall moo ma wax lii bi ma paree ma génn woo Cheikh Diop mun ma ñëwal bureau ba ma ñëw bureau ba. jox ko sama liste ni ko dëkk yi ñëw amul courant ca Pire te damaa bëgg ngeen dugg fa yëngal fa bu baax a baax ndaxte juróomi village yi ñu ma mayoon ci ci ci ci campagne bi coow la caa bari woon ba yëf ya taxaw dama bëggaat ngeen ñëw coow la dafa bari woon lool waaye euh, bii moo dàq fii mu ñëwee moom moo gën directeur duma continuer ci gëruma ki nga ma boole ñu naan ko yoro yoro foofee nga woo yoro jox ko dëkk yi nga xam ne moom laa bëgg ñu def ko kuraan yi dëkk piir yëpp yoro guddeeg bëccëg subaak ngoon maa ngi moom ñi wax tàccu leen mooy yoro bu baax a baax a baax musuma koo gis dégg naa mi ngi fii mais man musuma teg bët yoro ana yoro yoro nga ne tàccu yoro guddeeg bëccëg subaak ngoon maa ngi woo yoro yoro di ma teg ci axe di ma expliquer directeur moo ma boole moom ku mat ndaw la li nga ko sant mi ngi koy def ci tund wi mais directeur li ñëpp wax laay wax dégg naa la ko sa nopp nga am loo ma wax wax naa la ko sa bureau nga wax moo ma wax mais directeur waa PDC bëgguñu am ñu génn kii te taal ñu làmp yëpp dëkk yëpp parce que neex neexu leen a jot ginnaaw yot naa ba jot leen na yegg rek ngir yàlla directeur parce que soo leen génnee dëkk bi te dëkk yi ba te dëkk yëpp tàkkul loolu wóorul wóorul dëkk yu mag yëpp dinañ am courant mais dafa am ay dëkk yu ndaw yoo xam ne par exemple fii nii ak taaleen pël ak wala taaleen wolof diggante dëkk yi matul 500 mètres dëkk yu ndaw ndawaa yooyu su ñuy lim kenn du leen limaale mais fil gi da leen romb na fa wàcce poto rek jox leen parce que ay 500 mètres la. techniquement xam naa ne su doonee ay 1 kilomètre 1 kilomètre mën na indi ay problème mais ay 500 def naa mën nañ ko cee waabale waale. kon boog ñu bala ngeen a génn waabaleel ma dëkk yu ndaw yëpp bu ndaw njëriñ bu mag dëkk sama waaja ngi ngewar surtout ngewar dëkk bi naan ngewar ngewar gën a jege Pire ci dëkk yëpp ngewar. ñoom ñoo ñoom ñoom ak waa maanaam biir Pire la nekk mais ba léegi amul courant te Ngewar a ngi biir Pire ca wetu stade ba dëkk yu mel noonu dafa bari soo demee gox bële ñu jóge ñetti village a fa des ñetti village muy nu mu tëddati Càlle Màkkafaal que dëkk ma nga nekk njiite dina am fële sa ginnaaw dëkk ba nja njaay sàmbanaar ñoom ñoo fa des yeneen dëkk yi fi nekk yëpp tamit ay dëkk yu ndaw la mais ma xamal leen ni kii ngeen di gis ni Cheikh Diop taalul ay làmp rek mooy defar yoon yi mooy joxe machine wal yi ma leen di jox monsieur le directeur soo taalee làmp yi ba pare wala balaa lamp yee tàkk jéeg yi dox nañu pir ba sonn di wali machine yi ngay joxe bëgg naa nga may ci jéeg yi ndaxte président Macky Sall lim la dénk sa genre yii la war di dénk ndax lim la dénk yaa ngi koy jox askan wi te man fan yii war na maa toog ak président man ginnaaw kenn damaa nenul soo ñu defalul loon dara damay dem ni président defaluñu dara ginnaaw yaa ngi ñuy defal su ma demee naa ko wax li ñuy defal lépp te pir gii képp ku fi def ren ba déwén nga xool sa bopp soo so soo soo yokkuwul rek xamal la nga santaane woon defoo ko dëkk bi xam naa ni dégg nga ko li li fi nekk ci ay ngëneel sunu maam Tafsir Abdou Cissé ak euh, sunu maam Xaali Amar Fall ak nit ñu baax ñi fi nekk dëkk bii baay Baal mii nga doon dégg surtout Souleymane euh, Souleymane Baal maanaam la révolution du Fouta Thierno Souleymane Baal ab sëtam la ñoom ñoo dëkk fii donc du hasard ñu def yi affaire bi fii nii ñu ngi lay sant la gërëm nag li bëgg mooy yo li waa dëkk bi soxla mooy yoon lamp yi tàkk ak ay machine wal ndox mi moom mi ngi ñëw temps yële passé gox bii toog nañu ñetti weer yoo xam ne kenn naanu fi ñu ngi nii fu ne dugg naa fa ndaxte forage bi nga xam ne moo nekk boori Tivaouane sous-préfet ñi nii xam naa forage ba toog na ñetti weer yoo xam ne dafa panne ñoom dañ may woo ba mujj gi damay rus te dëkk boo dem am na teen te fii soo waxee tuuti am ndox forage yu baax yi ngay defar may ñu ci nee leen mu may ñu ci forage yu baax yi muy defar parce que benn forage ba ne Tivaouane attanutul li mu yanu dañoo bëgg ñun suñu forage bopp boo xam ne village yi nekk Pire ñoo ciy connecté wu su ko defee duñu amati problème mu ndox lépp mënoo koo defagum benn yoon mais fàttalikuñu di ñu ñamal par tuuti rek comme ni ngay ñamalee mais courant bi moom waxuñu ñoom dañ bëgg nga waamaleel ñu lépp loolu lépp nag li ma def ci dëkk bi yëpp li may def ci dëkk bi Mamor Mamor waa Bale waaw naa Bale dégg naan Cheikh Diop waa Bale Cheikh Diop waa Bale Cheikh Diop Cheikh Diop Cheikh Diop voilà Cheikh Diop saay directeur man maire bu neex laa man maire laa boo xam ne man ak sama population dañoo dañoo jaxasoo du ma maire yi aji mbagg ak yi noonu noo non man ak sama population nii lañ mel soo leen gisee nag li Mamor wax lépp ma def ko li Cheikh Diop mii di def pour mu mën ko c'est parce que président Macky Sall moo ko dooleel dooleel ma yéen yéen ma dooleel ay élection la ñu jëm damay teg nee Cheikh Diop nag ay élection la ñu jëm coow li bari ci réew mi lii ngeen bëgg pour ñu am ko Macky Sall dafa war a gañewaat élection yi fii nii mooy tax ngeen jox lii ngeen di wax ñun tëdd ñuy bool taalu ñuy puno xeexuñu kenn max ñu bëgg taal làmp yi liñ bëgg mooy jeeg ji am financement liñ bëgg mooy jeeg ji am ci machine wali liñ bëgg mooy am ay piste nit ñi dafa jaar ci loolu lañ ne taluñu xuloo taluñu xeex élection yi di ñëw maa ngi leen jox rendez-vous na ngeen mobiliser woon na ngeen àndaat ñu ànd ak suñu papa Serigne Boubou gaaña élection yi dëkk loolu moo ñu jëmale kanam waxtaan wax dëkk calal nee naa leen dëkk bu ndaw du contre nguur ñi leen di woo ci ci ab xeex du ñoom ñoo leen di tàllal làmp ñu leen di woo ci tëgg tëgg ay ay ay ay bool bi ñoom ñoo leen di indil ndox ñooñu ginnaaw loolu lañ féetewoo bàyyi leen ñu féetewoo nga loolu xool ba xam loolu kañ lay développé ab dëkk loolu na ngeen ci bàyyi na ngeen mobiliser wu préparé wu suñu tabaskee ba ci suba ga la ñuy commencé campagne bi safal ko ba mu saf saf jox Macky Sall majorité bi ma Macky Sall ca yar ba ca yaru nga ca ca ca ca yéwén nga mu defaral ñu suñu dëkk bi dëkk bu ndaw du contre nguur wax naa leen ko waxti leen ko ñun mënuñu dara attanuñu dara keesu mairie gee ma yor mënul taali lamp de dama leen koy wax mu leer makey taal lamp yi mooy indi ndox mi mooy indi machine wal yi mooy indi affaire yi keneen keneen ku fi ñëw fii fii sax xam naa ni moom benn opposant ñëw fii ñëw di campagne bàyyi baal du ko ci bàyyi te maa ngi sant di gërëm nag bala may tàggoo dama fee am ay gone ci tund yii dama leen lim ku ñuy wax Abdou Aziz Diop tàccu leen Modou Gaye sama yàlla sama gaynde yooyu Saliou Lay lay fatigaalu Saliou Lay Mafatim Cissé Awa Ba Biina Lay Caara Soog Ibra Dia Ibra moom otoom la yor di wër fu ne ñi ñooy liggéeyal Macky Sall ci tund wi ay xale yu ndaw la ñu ginnaaw mag gi sax jaruñoo tudd mais ñii doomu mag ñi lañu ak ki nga xam moo di Wali Touré ma nekk fële ca Daxaar doj ba fële bàyyi lu baree bari ànd ak man mi nga xam ne yorumalu suukar baraar ñu gagné élection yi donc yéen am ngeen mérite ASC yi tund wi yëpp laa jëndal ay mayo ak i ball loolu su ma ko mënee se grâce à président Macky Sall moo ma may doole may ma fit ni ma doxalal kon boog yéen it da ngeen may mooy doole mayu fit ma doxal su ko defee sunu dëkk bi mën a soppeeku ñu ngi leen sant di leen gërëm bu baax a baax a baax li fi may delluwaat mooy fàttaliwaat waa PUDC waabale opération waabale na fépp am courant ñaanal leen ko su ko defee ñun ñoo ñëw jàppale bu baax a baax jërë ngeen jëf jëw remercie di sant di nuyu ñi ñu fi fekk ñëpp ku nekk ci turam ak ci santam di jiital nuyo bi ci suñu aada buñ fi ñëwee ci gox fekk fi ay mag dañ leen war nuyu jox leen seen wàccuwaay ndax euh, li naan mag jan janna ba cim réew te am na mag ñu fi wax yu am solo ñu ngi leen ci sant di leen gërëm di nuyu monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Pambal monsieur le maire maa ngi lay nuyu ak sa équipe municipale bi yëpp di nuyu jigéen ñi di leen jox seen wàccuwaay di leen sant di leen gërëm kulim lim jum nañ nuyu nañ ñëpp daal ndax timis jot na di am mbégte taxaw fi tey jii ci Pire Ndoye xam nañ ko lu jiitu ñu koy gis sax xam nañ ko lu jiitu mu doon maire mu ñëw sama bureau ay yoon yoon ba bi yàlla defee mu jot ci maire bi mu ñëw ñu toog ñu waxtaan mu xamal ma li nga xam ne nii moom mooy mbébétam ci commune bi ma ne ko ci dinaa la jàppale jàppale googu def naa moo tax ñu taxaw fiite tey jii ci wàllu courant bi nga xam ne ni liggéey bi door na te incha dana egg bu yàlla da ngeen wax waamale danañu waamale jëmale ko ci équipement jigéen yi da nga xam ne maal dàq politique de dañuy waamale jëm ci équipement jigéen yi incha allah fii ki fan rek di ngeen ci jot booba waamale bi mat wala mu mottali li nga xam ne nii commencé nañ ko ci électricité bi ndax liñ jot a bind fukki dëkk ak juróom mosuñu ko def ci benn commune amut lu dul xëy na dëkk yi nga xam ne nii ay dorsal li ñu naan dorsal ñoo ko romb foofu faaw nga wàcc courant bi sinon coow dee bëri mais nañ door ci fukki dëkk ak juróom bu ñu paree techniquement ñu xool maa ngi doon laaj sama kilifa gi toog Cheikhou Cissé moom dëgg rek lay wax ma ne ko ndax mën nañu waamale mu ne waaw nañu waamale jëm ci équipement yi après nag danañu xool buñ buñ paree ñu xool ñëw xool bu fekkee 300 mètres 200 mètres techniciens yi wax ñu nu ñu def liggéey mais li nga xam ne ni mooy ñu président moom la ñu président sant sas ñu ko. maa ngi bi may ñëw maa ngi suivre jokkoo ak Macky bi muy def ak les 300 jeunes rappelé na ko monsieur le sous-préfet l' universelle mooy maanaam fépp fu gox-goxaat nekk ci Sénégal fekk 2025 bëgg na foofa am électricité donc. mission bu ñu dénk la ñu nag ASER rek Senelec ak ñëpp ñi nga xam ne ni ñu ngi yëngatu ci wàllu courant parce que foo yóbbu courant danga fa indi koom te fu koom nekk di yokku nit ñi gën a wér nit ñi gën a am am xol bu féex jigéen ñi gën a rafet gën a jekk donc ci nit mission lañ nekk tey dama koy féliciter di ko encourager ndax. Euh, lim yenu xam na ko li ngeen ko sas xam na ko moo tax du du sonn du noppaliku ndax Mamor lim na lim fi def ci ñeenti weer yi dañ koy ñaanal yàlla may ko wér ba nga xam ne ni lii mu sumb ànd ceeg ñun ñu mën ko eggale mu doon seeni seen njariñ ah, li ci des nag moo di ne wax na ko wàllu ndox mi danañ fi yónnee équipe mu xool ko ñu saytu ko hmm. ñu xool est-ce que Pire dafa nekk ci périmètre affermé wala déet loolu il faut ñu xool ko monsieur le sous-préfet parce que euh, conduite lac de Guiers bi soriwu fi donc bu fekkee mi ngi ci nekkul ci périmètre affermé de du domaine urbain danañ jéem a xool Moustapha Lo mi ngi fi xool incha allah euh, su fekkee mën nañ fay def benn forage ñu def ko fi pour jàppale leen incha allah rabbi puisque timis na te dañuy doog di door travaux yi. am yéene eggale ko bis bu ñëwee mise en service boobu def naa ne waxtaan wi ki la gën yaatu parce que fi toll nii am na am na góor gi wax na ko sànq nee na du ñu félicité anamu waaw lan nga wax waaw danal waaw góor waaw góor mooy mooy mooy da ngay làbbali damay da ngay làbbali pour mu gën a bar mu gën a gaaw donc bu ñu eggee ci cëppaandaw la ci la ñuy ñëwaat bu ñëwaatee incha allah ngeen biral ñu ne lañ lañ lañ sàttoo woon ak yéen def nañ ko boobaa waxtaan dina gën a neex mais incha allah ñaan leen ñu wér-gu-yaram ak ñu fekki ko te tal ko ba nga xam ne nii liggéey bi équipe yi ñu ko yi ñu ko dénk danañ ko mën a liggéey ci anam yi ko bëggee boobaa nag ñu mën a waamale jërëjëf monsieur le maire merci beaucoup. di nuyu bi ak kilif yu teew. di nuyu monsieur le maire et tous les conseillers monsieur le directeur général ñu ngi lay nuyu di la ñaanal yàlla yàlla kattanal la wax bi du bëri comme dañ doon ñëw di xool installation yi wane ni demare na ni directeur wax rek laay wax bala ñoo wax dañuy bàyyi ba gis li ñuy liggéey mu tàkk ñu ñëwaat fi ni lii lañu waxoon def nañ ko waaye damay insister rek ci ndox mi kooku moom nga bàyyi ci xelu baax a parce que nekk na yitte gox bi lool lool lool lool lool parce que benn forage moo fi nekk bu ni ni Baal qui est dans la commune de Tivaouane et qui faisait partie de la commune de Chérif Lo mu rattaché wu maintenant des euh, nu mu bëri village yu bëri bëri bëri ñoo ci aju ba euh, dafa am trop de pression wa kon foofu vraiment euh, c'est pertinant pour forage bi fii dans la zone ñu xool ko kon loolu rek laay gàttal mi ngi timis di leen ñaanal yàlla ñu dellu ci jàmm ñu dajawaat fii beneen yoon ba ñëw di taal lamp yi di indi machine wàlli di taal forage wasalaam jërë ngeen jëf